lu ci mel ni ay laboratoire laboratoire yu ñu jàppale dooleel ñu vraiment euh, di ñu buux ci lu baax franchement ak ay médecins yu ñëw juste pour jàppale ñu jàppale ñu ak ay ñeneen ak ñeneen ñu ci jàpp bëri na ñu ci jàpp bëri na bëriwul waaye mais sant yàlla rek. man je m'appelle Mor Sow je suis docteur en pharmacie voilà Tivaouane la ñu dëkk tey bu ñu ñëwee ci consultation gratuite bi c'est pour voilà indi suñu participation ci li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. parce que amuñu fayu Tiwaawan Tiwaawan la ñu jàngee ñoom ñoo ñu jàngal ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu doon tey li ñu doon donc bu fi lii amee li nga xam ni acte bu noble la muy consultation gratuite te mu nekk ci suñu wàll ñun dañuy ñëw ñun ñoo gérer pharmacie bi tout ce qui est médicament ñun ñoo koy dispenser voilà mu nekk euh, loo xam ne euh, soxna Ngone moo ñu ci invité y a docteur Mar aussi à l'intérieur voilà donc ñun ñoo ngi fii pour jàppale waa Tivaouane parce que amuñu lu ëpp Tivaouane donc li nak initiative bu rafet la bo xamné jeune kep koy jeune war nako ko imiter parce que nit ki fi nga dëkk ki wara développer moy jeune yi parce que mag ni mom seen wàll wéyna ba paré donc ñun jeune yi nak ñoo ci dess pour jàppale waa Tivaouane ku ne ci côté ba nga nekké rek nga xol no jappalé sa dëkk pour mu dem ci kanam waru waruñoo xaar ci autorité warunyo xaar marabu waruñoo xaar ku ne na ku ne juk rek ci lamu mon mën mu japp ci donc consultation gratuite intéressant c'est rare souvent c'est rare nga consultation gratuite yoo xam des médicaments souvent da ngay les médicaments consulter la bindal pharmacie mais nous on a fait de telle sorte que oh, les médicaments sont disponibles Les ci am solo disponible na manam maladie yi nga xamné mom mo moo récurrent ci médicaments yoy disponible muy garabu tension képp ku fi ñëw am tension mën nañ la jox garab goo xam ni boo ko naanee respecté nii la ko naanee mën nga nekk ci jàmm képp ku fi ñëw am infection muy antibiotique am na ci biir képp ku fi ñëw am douleur muy luy métit garab yi disponible nañ képp ku fi ñëw am loo xam ne déparasitant la maanaam danga am ay sànn sa xel di teeg yooyu yëpp garab yi disponible na yaakaar naa ni kon association kon fondation bi li mu def am na solo trop donc ñu ngi leen félicité bu baax a baax a baax waaw di leen wax ne nag ñun bon on est toujours là on est toujours disponible pour waa woon te lii nag képp kuy quartier bu ne man dama jàpp ne quartier bu ne war naa imiter lii même bu fekkee benn yoon lañ koy def ci weer bi mu nekk loo xam ni day jëmale Tiwaawan kanam parce que bu ñu ko doon def benn yoon ci weer bi di sensibiliser nit ñi voilà di leen jox ay garab yaakaar naa ne lu mel ni li ñuy wax les maladies cardiovasculaires dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax te maladies cardiovasculaires yi dafa bëri Tiwaawan chaque jour nga dégg ñu ne kii am na AVC jour nga dégg ñu ne kii am na diabète mais bu ñu amoon consultation gratuite mel ni nii di xoolal nit ñi seen suukar di xoolal nit ñi seen tension leen jox ay garab yaakaar naa ne loolu dina wàññeeku bu baax a baax baax a baax a baax

fondation des sympathisants aussi de Tivaouane tey Wanani, c'est pas une fondation qui fige juste une activité am nañ ay domaines yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy yëngatu ginnaaw bi ñu defee sargal Serigne Abdou la neme koy tey sarbu Tivaouane ñu gis présence bu mu am ak nit ñi ni ñu ko joxee gëdd mu nekk programme bu nga xamante na ci agenda Tivaouane tey ñu ñëw ci journée de consultation gratuite ñu war ko pérenniser parce que nekk une activité bu nga xamante ni dañ koy def benn yoon bàyyi duñ ko def di ko bàyyi dañ koy chaque année incha allah alors nous ne far ko les autorités de la ville de Tuawan. parce que nous avons on a envie de bien faire mais peut-être qu'on n'a pas les moyens moyens suivre nous. alors nous avons dit « les les autorités de Nous avons appelé la fondation parce que la fondation bi la fondation, parce que nous avons fait des on l'a fait pour la population de Tivaouane donc nous ñi nga avons dit que lañ activité alors ñu ngi nous di woo parce que on n'est pas là di sànni xeer wala kii jàppale wala nangam sangam parce que qu'on fait là on le fait pas pour qui que ce soit on le fait pour nous-mêmes parce que Tivaouane lañ koy defal alors ñu ngi woo la les autorités de la ville ñu ñëw jàppale ñu ci activité bi mel parce que def nañu tey euh, une de gratuite alors yàggul dara am nañu euh, benn activité bu ñu defoon ak taalibe yi ñu fexe woon taalibe bu nekk tu ci lu ñu mën ñu jox leen pull wala couverture ci seddaay bi nga xamante ni traversé nañ ko

man japp naa ne képp ku nga xamanteni gis na ko mu gis ci boppam war na ko mën a def ngir jëmmal wala taxawal population bu Tivaouane loolu rek moom moo tax fondation bi di waat ñëpp surtout les autorités yi nga xamante ni ñoom la Tivaouane jiital parce qu'on ne serait pas là di sànni ñuy xeer wala di wax ni kii defaluñu dara non non non on appelle tout le monde c'est un appel solennel que nous lançons c'est-à-dire que képp ku nekk ci ñun xam ne am na responsabilité bu nga xamante ni war na ko war na ko war na ko jël envers la population de Tivaouane parce que ñu leen jiitalee aussi bëgg nañ ñu ñuy taxaw alors ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp

di wax ni kontaan nañ ci taxaway bi nga xamanteni am nañ ko loolu rek mooy am solo moy le plus important dans tout ça c'est tuawan c'est que Tivaouane avance c'est que la population de Tivaouane se sente accompagnée par les jeunes par les politiques par les autorités qui sont ici dans dans la ville sainte donc ñu ngi leen di woowaat ñoom ñëpp ñu gën a dëggal seen taxawaay gën a taxawal li nga xamante ni moom mooy jëmale Tivaouane kanam moom mooy jëmale population Tivaouane tan alors ñu ngi sant bu baax a baax a baax ki nga xamante ni ci ñun la bokk. muy Ngoné Jox ndax taxawaay bi nga xamante ni am na ko muy commission santé ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon di liggéey parce que xëy na à un moment donné ñun ñàkkoon nañ jot amoon na ñeneen préoccupation ñoom ñoo taxaw jëmmal population bi taxaw dëggal li nga xamante ni moom mooy jëmale jëmale activité bi kanam donc ñoom ñu ngi leen di remercier di kontaan bu baax a baax baax ci ñoom di wax ni liggéey bi nga xamante ni def nañ ko suñu borom yàlla nañ ko fay yàlla na lépp lu xamante ni séntu nañ ko ci suñu borom defal leen ko.

ñaan yalla lu mën ren bu déwénee incha allah rabbi mu mën lu ko raw di remercier laboratoire yi nga xamanteni ni ñëw nañ jàpp ci médecins yi nga xamanteni ni cuwaar lañ jëkk ñu ñëw dimbale seen seen population xeyna amuñu levier yu leen di ñu leen dimbale tout temps mais tay la fondation les a permis de de venir en aide à la population de Tivaouane donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ñoom médecins yooyu noonu di remercier aussi les médecins yi nga xam ñu ngi nañ Dakar ñu jugee nañ Thiès ñu jugee Mboro ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ni

di remercier la presse Tiv ci taxawaay bi nga xamante ni ñu ngi koy am si activités yi kontaan nañ bu baax si ñoom ak yeneen presse yi nga xamante ne ñëwoon nañ fi di ñaan yàlla mu may ñu wér tal ak fekkee ba lépp lu nga xamante ne population Tivaouane soxla na ko ñun ndaw ñi ñu engagé wu jox leen ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh merci